pour vous aider à réaliser vos rêves. Digital Store vous propose sa nouvelle gamme de smartphones et tablettes sur Android les derniers sur le marché digital. La tablette Core T4, le smartphone Core X4 et le téléphone flottant Shark X3 sont des outils qui vont transformer votre quotidien. Dotés d'une autonomie suffisante, résistant aux chocs, étanches dans l'eau, ces produits vous accompagnent dans toutes vos activités professionnelles hors de votre bureau. très performant, d'une très grande résistance, éprouvé aux normes militaires IP68 et doté d'une alarme en cas de danger. L'entreprise Crosscall est le seul qui propose une garantie sur 3 ans. Contactez-nous vite dans nos boutiques showroom avenue Bourguiba et à sur la Corniche 33 améliorez votre quotidien. bokk na ci xibaaru gàttal ñeel États-Unis ak tolluwaay la laata ñu ci dikkaat ci lu gën a yaatu ak yéen ñu nga ca yi gannaaw sànnim xob mag di për ñi gi ñu ngi ci wàññi gi jamono yi amagul nag euh, ndam ci kenn ci ñoom waaye bu dee jiitu ci wàllu xëccoo gi Joe Biden moo jiitoog ñaari téeméer ak fanweer ak juróom-ñett euh, ci wàllu wàññi gi ñeel grands électeurs Donald Trump topp ca moom mi jiite réew ma ba fii ak ñaari téeméer ak fukk ak ñett Joe Biden 238 euh, Donald Trump 213 ci 270 yi ñu soxla ne ay grands électeurs ngir roppi gi waaye Eh, kii di Donald Trump ma nga yëglu jamono yi ndax nee dina jokkoo ak Cour suprême dafa njortal eh, démocrate yi di wàll wa ca des ak càcc ñeel lii di élection ya dinañ ci àndaat ak yéen. <laughs> commencé naa kaste benn xewagul ah, ñu ngi ko seen i vote li gars yi naan naatable dugg na ko de parce que moom <laughs> te moom mu nekk au pouvoir moom waaw <laughs> ñu war ko mu jiñaate bu doon fi Afrique opposant ay jiñaate en tout cas donc xam nga nag mm. politique amérique dafa complexe mm-hmm, dafa mm-hmm, lëj mm-hmm.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 ak bitim réew. ndax lii ñu am lépp tawfeex ci sëriñ bi mën a may. gën noo gàtt noo tawfeex ci sëriñ bi.